liñ amoon ci suuf na quasiment parce que amnañ plus de 150 entreprises yo xamné euh, ñu ngi fi euh, di taxaw amuñ fu leen def li ñu leen li nga xamone ne nañ ko fess na del mu bugg mom mu ñu encore espace bo xamné dinañ mëna placer ñenn ñi sax ñu wuti fenen mais ñenn ñi ñu placer leen. bi li ma ci doli rek mom moy que ne ah, euh, mom engagement yi nga xamné ñun jël nañ ko mom moy que ñun ñoy dooni incha client bu gëna mag pour le terre ñooy doon aussi client pour habitation yi parce que gisal nañ ko seen bopp entreprise yi ñu gis rek ay milliers d' emplois ñoo fi nekk di liggéey té lolu day continuer rek di di yokku gis ngeen usine biscuiterie bu bees bu ñëw usine carton bu bees bu ñëw gis ngeen usine coca cola bu ñëw gis ngeen yeneen usine yu bees dañ doon wone usine yu dox mais aussi yi nga xamné c'est en construction lolu daal la doon wax di wax aussi ci masque yi euh, laaj ngeen ma ndax euh, noonu lañ defee Covid bi wone nañ Covid bi liggé nañ peut-être 50% pour cent ñu ngi doon stocké ay production mais aussi orienté nañ ñi nga xamné dañ doon nekk ci textile ñuy def ay masques def nañ ci masques yu bëree bëri euh, fi lañ joxé ministère de l'intérieur ministère de l'éducation ministère de la santé ministère yu bëri jox nañ leen enseignement supérieur joxé nañ masques yu bëri mais am nañ fi ay masques yo xamné ne ñu ngi nek en stock am fi plus de 15 millions de masques D'ailleurs, amee fi plus de 8 millions Nous amee plus de 6 millions 500 et am une fi unité pour xam des masques chirurgicaux yi nga des ne yóbbu a yoo hôpitaux des yëpp ñu Sénégal di ko sur plateforme La plateforme industrielle dafa am solo ci réew parce que plateforme industrielle moom la booster lu croissance croissance ce que nous am Comment ci li PIB PIB il dafa bëri dafa PIB production PIB dépense PIB revenu mais vous ñu intéressé par le PIB production Vous nous intéressé c'est justement def nañ ci parce que l'entreprise, c'est un rôle de secréter une valeur ajoutée valeur ajoutée pour vous. muy vous a fait. a avons fait ñu amee ko ci que production consommation intermédiaire il faut que la consommation soit une consommation locale pour que valeur ajoutée mën top. jóg l'année qui ñu actuellement te valeur ajoutée boobu daf ñuy tax ñu mën calculer lu wax PIB ni ñi dañ koy wax rek waaye calcul bobu. moom moo nekk somme valeur ajoutée inga nga am yëpp ci Sénégal ci économie bi nga yokk ci taxe et droit de moins mooy subvention kooku moo lay jox valeur ajoutée valeur moo la jox PIB PIB boobu nak. mooy tax nga mën calculer lu wax croissance croissance ci réew nag dafa am solo chiffre bi de nañ 7 pour Covid bi sax moo tax ñuy wax légui ay 3 2 parce que Covid fay entrer li wax le ralentissement économique té dëkk ça ça ça entraîne une chute du PIB Il fa nek lo xamné lu du Sénégal rek c'est général c'est tous les pays actuellement bon qui sont atteints par ce virus insaisissable et donc ce suma je ko waxé ba que euh, ni rek gis entreprise yi ñu nga xam ni ñu ngi fonctionner war na mo 30 yi nga xam ne ñu ngi nekk en voie de démarrage mu nekk 40 li ci des nekk en idée de projet idée de projet nag mooy vraiment loo xam ni presque ñor na ba pare di bëgg a wax rek ni effet yi mënuñ ko sax calculer parce que li ñuy wax effet direct dafa am effet indirect dafa am soo leen boolee ñoom ñaar la jox les effets inclus d'un projet effet inclus yooyu sax mën nañ ko dépasser boo wax externalité externalité effet indirect la ken calculer évaluation ex ante du projet koy ko parce que ngi dafa effet indirect bu même évaluateur parce que en équilibre global lolu motax mani entreprise yi entreprise am économie nationale et donc lolu di encourager aussi Mamad Ba bi parce que vision président moi une vision c'est une vision à long terme une vision porteuse une vision qui doit accompagner en même temps porter accompagner impulser les bras opérationnels qui existent, qui donc c'est que vision la vision parce que vision vision une fois que je pense que depuis 2012 le PSE, vraiment un référentiel extraordinaire, chanté par tout le monde, qui a fait vraiment euh, ses, résultats aussi, et donc euh, qui a fait sa sonorité vivante depuis que vraiment ce PSE e a été mis en place.